alhamdulilah ñoo leen seen revue de presse lamb altine tey jii la ci gën a fës suñu lamb mu ñu xamal ne face à ba amoon ca Gàmbi ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé tàngoon na jër rawatina ca capital ba di Banjul suñu lamb mu ñu xamal ne degré ba yeggoon na ci ba ci cent quatre-vingts suñu lamb mu ñu xamal ne Modou Lo dafa mujjee quitté lieu ki nga xam si ni moom di Ama Baldé mer combat royal bi suñu lamb mu ñu xamal ne noonu la face à face ba mujjee demee waaye Albouri ak ki nga xam si moo di kéwal ñoom ñaar tamit yëngal nañ ko ku ca nekk dig nga sa morom ay duma kii nga xam si ni moo di Gora Sock lim dig ay supporter moo di ndaxte wër ta tegale li nga xam si ni moo di troisième défaite ginnaaw Tyson 2 bi mu ko daanee ak fils de Balla mu ngi jëm ci Mama Lamine def nañu tirage au sort ba suñu lam mu ñu xamal ne jëm ci huitième de finale yi suñu la mu ñu xamal xam nañ choc yi léegi diggante Pikine lay doon ak waa Mbour Petite Côte ñi nga xam si ni ñooy waa Géejawaay ñooy dajeeg ñi nga xam ni ñooy waa Jàmmagën mooy ci tournoi bi nga xam si ni Mali Ngom moo ko organisé suñu lam mu ñu xamal ne match ya noonu lay demee Géejawaay Jàmmagën Petite Côte ak ñi nga xam si ni ñooy waa Pikine suñu lam mu ñu xamale match am na niki tey jii diggante arbitre yi ak mbëri Grand Yoff suñu lam mu ñu xamale équipe bu Grand bi kii di moom moo leen jiite waaye ki nga xam si ni moo di Zarko suñu lam mu xamale nekkul ci équipe bi kii di Tmax ma nga ca ak Gorfit ndax Zarko jamono ji suñu lam mu ñu xamale ma nga ca diwaanu Gàmbi dafa nekk di waaj digganteem ak ki nga xam si ni moo di Diène Kayré seen combat bi nga xam se ni ñi ngi ko jàpp dimanche 17 décembre ci arène nationale moo tax Zarko nekkul ci équipe ba jamono ñi dafa nekk ci wàccaay combat am moo tax mu dem ci diwaanu Gàmbi laqatu fa di liggéey suñu la mu ñu xamal ne équipe bu Géejawaay ndax daañu gisaat Balla Gaye 2 sol crampon yi gunge ñoom Alioune Seye 2 ci wàccaay wi seen diggante ki nga xam si ni moo di équipe bu jàmm gën suñu la mu ñu xamal ne équipe bu Géejawaay boobee caatu daaw dafaal moo ca nekk ndaanaan ku bëgg football la moo tax boo ko seetaanee xam ne kii am na amour football te am na lu mu ca mën moom caatu daaw dafaal suñu la nga ñëw ci beneen buteur nekk ci équipe bu Petite bi mooy ki nga xam si ni moo di Toubacouta Bamba Sarr ndaanaan bu mag bi suñu la mu ñu xamal ne ma ngay wane boppam match bu neex amoon na diggante Pikine ak waa NGB suñu laa mu ñu xamale 1-1 lañ defoon waaye dañoo jékki-jékki Pikine renversé ko dóor ko 3-1 ginnaaw loolee ñu ñëw ci combat serpent noir ak ñi nga xam si nii moo di doomu jàmbur combat boobee Mbousnakh production jàpp na date ba date ba génn na léegi léegi leer na 11 novembre ca la ñuy laale ca diwaanu arène nationale suñu lam mu ñu xamale ak keneen combat ak yeneen combat yu am solo yu cay am diggante Sawalo ak Zarko 2 diggante Nekorel ak Sombi bu keroogee daañu ca daje